àndul ak naafeq jullit mooy jàmbaar jàmbaar moo tax lislaam juddu ay bakken farti jullit ak dëggu moom moo tax tey waa kër Serigne Touba waa kër El Hadj Omar waa kër Niassène ñëpp di mën a sigg kon loolu mooy góor ñi loolu la ñu jàngal suñuy xale mais di nëbbul ci ay clavier di changé ay tur jël lekk goo turu jigéen di saaga loolu APR xamu ko tey xamu ko ëllëg ndax suñu président xamul loolu xamul ëllëg léegi nag. yaakaar naa ni euh, politique ci lañu nekk te yaakaar ni li suñu professeur yi wax wax loo ba lu droit islamique ci charia wax li xam ne mooy sunna sunna su Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan la njaboot war a téye ay doomam am na ci àq fii te bu ko fayulee fii tamit dina ko fay feneen jigéen nan la ko l'islam mu tedd bi su yonent bi sallallahu alayhi wa terale ba nga xam ni ci jëmmam ci taxawaayam muy sëy mu nekk xale ba muy nekk mag nañ ko mënee suturaalee aar ko iir ko suturaal ko mais li ñu gis léegi senegal dafa doy waar li gën bon mooy yéen imaam yi yéen ustaas yi da ngeen commencé rax parce que ñi gàmmoog ñuy raas dem du ñu benn gis ngeen fan yi yëpp bi mbir mi abee koo xam ne kilifa la yore ay ndombo tànk yore soxna yore juróom fukki at xale bu ndawa ndaw amagul ñaar fukki at fu mu juddoo sax ba léegi ndox ma woowagul ñu taxaw mu wax ni am nañu ko nettali ay nit ci presse bi partout ah, parce que presse tamit mooy liggéey mais mooy yàq tamit am ñu far carrément di fen gis ay jigéen naan ñooy tàntu xale bi ñu ñooy nijaayam dafa laa ragal yàlla moom yaakaar naa ne gis naa ñoo xam ne imaam nañ ci benn plateau mu jàpp jigéen di ko saaga mu dem naa sax ba wut tëral ko ku ma ko jàpp ci laa ko duma ngeen ma ah oui alors léegi nag bi loolu amee ñun yoon la am Sénégal pays laïque la konte l'islam ak jàng yëpp tere na ñen jox nañu seen aajo code de bi sax ci loolu lañu ko jëlee mais doomu mun a yow senegal ne yow kenn duma ma àtte saagaay magistrat ne réko bi kooku boo jëlee ko lan ngay def saaga alkaat yi dóor alkaat yi ba seen loxo dagg li fi am yëpp man maa ko maa ko engagé man maître waar yëpp Ousmane Sonko moo ko indi ku ko wax wax nga dëgg ku ko wax leneen tamit wax nga leneen moo xëy suba ne ñëw leen muy mortal combat combat ba xam ne bakkan laa leen laaj ay xale yu ndaw xamuñu sax luy luy politique dugg ci ñaata bakkan na dee président maa ngi lay wax ko ku ko war a paye maa ngi gërëm Serigne Mountakha di ko ñaanal yàlla gudd fanam mais bu dee lislaam la ñu wax deret ku ko tuur yaa ko war a fay sera bu ñu atee yi dagg sa baat njaaloo boo ko defee rawatina nga am soxna bàyyi ko foofu dem naa ñaa ngi dàmp sa ndigg naan jaanu dangoru jaanu may faj vraiment bëgg naa ñu wax ay dëgg lépp la am depuis le 8 février ba tey ji man maa ko wax man maître waar j'enlève les masques Sonko ak kàccoor ak saay-saay yi mu àndal muy ñam Y'en a marre ay ay ay espana de petits truands yoo xam ni ba sa bi di jàngi jàngiwuñu toxi yamba yàkkataan jigéen ñi lañ fi nekkee ñooñu ñoo def loolu mooy ay ñoom ay caacak ay kilifa ba doon lan la doon sol tuba yoo xam seen taat yi day génn ci biti man ñooñu xaw ma góor jigéen xaw ma lan man maître maa ko wax. yéen nag waa pare maa ngi di góorgóorlu di leen ñaanal président Macky Sall bu ñëwee ba naa ko ay complot président Macky Sall li mu def ci ndaw yi gis ngeen ko wax yàlla rek tax may wax. diggante 1960 ba léegi Macky Sall li mu def ci ay at ci formation professionnelle léeg dañu xoolee nan lañu koy defee bu ci teg ba tam ko xool. mais ci xale yi ni ngeen jëlee université bi ñuy jàng formation professionnelle ñaata établissement la Macky Sall créé diggante bi ñu nekkee nguur ci même pas juróom-ñett at juróom financement ñaata milliards la jël ba ci ay Casamance bi nga xam ni dans les temps nañ ko mos a fàtte kon Ousmane Sonko bu taxay naan maa fi nekkal Casamance yàgg am nguur daan am sa 2 millions yor ay ay ay ay terrain yaa ma dégg néegu ñax bu ko ne ndaw mosoo ko defal waa Casamance kon li nga xam mooy doomu Casamance. ñu ne deetawaay mu naan seen or ak seen jama ak seen pétrole yaa leen ko li ma ci wax du sore man maître waa nee na Ousmane Sonko diggante mag ndaw si ba muy dem tàgguwu leen tàgguwul kenn li naan nag sama ndigg li mu doon sama yeneen li mu doon sa ba maa xam effectivement dama la koy sama ndëkk li mu doon yëg man maa ko xam ngeen baal ma seen nopp seen ci baax waaw waaw koo xam ne nag diggam day metti ba ba léegi bi ngi dox cent kilomètres dafa miir mel ni fas mel ni nag nag yoo xam ne ñooy dem di ñu koy wax di màngaani waaw man feebar bi kon moom waa su suite buté war na leen war na leen war na leen gërëm ah, ah ku toog na sa mu ndigg day métti yow assemblée saa ñu lay fay ngay war a fay loo def loo ko fa fay Ousmane Sonko yaa tooñ doomu jàmbur force ko sàkk ko ëmb sax ñu ngi koy wax mais moom la dem tribunal Serigne Mountakha la ñu koy gërëm di ko sant nee na maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla guddal fan. ñi ñu téye maa ngi ñaan ñu bàyyi la mais ñu war a wuyu ji dañu wuyu ji. Abdoulaye Wade ñaata laa am ak moom du ko seeti prison tabaski korité et que taxaw si naan yéen xale yi ñoom jibi waar bëgg naa yéen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen aar ma. ba léegi mu ngi waroon nekk jàmba waroon nekk ragal waroon nekk tapette comme ni Ousmane Sonko nekkee tapette dégg naa nag muy tëkku naan deuxième vague li may ñaan rek deuxième vague boobu bu laa bu dee commencé ko bi rek wax dëgg yàlla du ko baal. fii nag ku fi ñëw di fi indi ay boo muccee rek man jibiwaar dem ba maa koy wax bu amee tànk yoo raame rek bilaay boo amee sa doom soo ko tullu kutiwaar wala golowaar rek du la ko baal voilà l'actualité gi ku ñu xëbal yaayam juddoogul jàmm lañu xam dëgg lañu xam teg ko ci yoon teg ko ci siraatal mustaqima mais taxaw di woo ay xale depuis février police woo la nga ni du ñëw ay bakkeen faat ci bakkeen yooyu faat maa ngi koy wax sëñ Mountakha di la gërëm di la sant l'islam ni mu santaane ki nga xam ne moo woote ne ku yëngu rey leen ko muy Ousmane Sonko ñun jeexalu ñoom men sama wàllu boobu nag député la parlement panafricain am na xibaar bi ma wax parlement panafricain moo nekk Johannesburg dëkk bu nekk am nga fa député man a xeex bi nag dépassé la Sénégal ak ñoom Macky léegi biir àdduna laa ko yóbbaale dem naa Johannesburg gis naa député yi fa nekk na naa li fi xew ngeen ko dégg télévision bi yëpp benn waaye moo ñëw bañ a téye gañoom jàpp doomu jàmbur tooñ siif ko sàkk ko ba ëmb sa am ci mais dina wuyu ji dina wuyu ji ci nii wala ci naa sëriñ si mu ci wax mukk ne ku tooñ lañ la bàyyi sariya dafa fiir ku dem ba tooñ doomu jàmbur wóor ay jigéen di fen sama mbokk ñoo xam ni vraiment xamuñu ban solo ay genre Pape Alé Niang ñeneen di jël ay PV di di fen naan kii mooy tàntu ndaw si ndaw si saay-saay la woon mais na nekk saay-saay est-ce loolu yoon may na ko loolu yoon